ak moom ñu waxtaan est-ce que candidat yi bokk yéen ñi tax ba lii am nii yéen bokk ngeen ci. parce que yeneen doo leen dem toog wax waxtaan mais koo xam ne yow booy waxtaan ak moom bii mooy quatrième dialogue chaque jour lu ko arrangé rek la fay wax. looy toog ak moom. mais est-ce que waruñu effacer coow loolu comme jeex na. mais suñu ginnaaw barki Demba Ndiaye barki Demba bu mujj bii dialogue bu mujj bi mais ñun député bi ñu réunion mm-hmm. mais une partie du Pastef dañ ne dañuy dem dialogue am na ay député yu Pastef yu ne dañ dañ war a dem ca dialogue ba fekk ko fa sëñ Cheikh Thioro fii la toog. fii nii la toog. émission bi fii ne man sëñ Cheikh Thioro bokk naa ci ñi ne woon dañoo war a dem yeneen député Pastef fii ne mukk lii moo taxoon ñu dàq ñoom Khalifa Sall ci coalition bi après majorité bi dégagé wu ci biir coalition kii bi groupe parlementaire bi après ñu ne demuñu. mais bu majorité bi d'accord woon ne dañuy dem mais député dañuy dem léegi nag ku mu neex nga dem ku mu neex tam nga ne ah comme que majorité la majorité l'emporte lañ wax. Mm-hmm. dem nañu mais man moom sincèrement man dara mënu ma ma toog nii jàkkaarloo ak man Macky Sall man je préfère bañ a dem mais nag comme que ci groupe la ñu ne majorité bi wax na nangam amul benn problème ñu dem ñoom nag ils ont préféré toog demuñu mais li ma la mën a xamal daal mooy Barth dem naag ñàkk naa dem ak. ala kuli alin dafay liggéey ak état parce que moom ca la mu ne c'est un démembrement de l'état mm-hmm. tey bu défilé amoon jaar ak 4 avril bu amoon nii tapis rouge boobu ñuy lal mm-hmm. ville de Dakar moom moo koy def loolu ca tradition wu jamonoy maam la tapis rouge boobu noonu président Bassirou Diomaye Faye war a jaar ville de Dakar moom moo koy def 4 avril place de la nation maanaam borom Dakar moo koy war a lal non état la. bàyyi su ko bàyyi ay affaire borom Dakar. non attends ah non bi crise bi gën metti ba gën a metti ba gën a metti. Ziguinchor 4 avril ba yaa ngi koy fàttali. Ah, waaw par force militaire yi ñëpp dañuy ñëw dañuy défilé. ça c' est l' yi di ko xool di dee militaires yi topp ci ginnaaw <laughs> fanfaari rëkk mu dem nekk le principal opposant wu Macky Sall y avait l' armée dëgg loolu dëgg ah. le maire de Thiès. président conseil départemental bi mu fi ci opposition la même chose. la même chose. Mhm. voilà. Mhm. ça c' est l' état. Macky Sall bi muy ñëw barki démb fii di inauguré BRT loolu du ma fa dem damay dem mhm. maay discours maa koy dalal nit ñi nag ñooy apprécier suñ discours ba continue ba da nga fa nekk di ko xalamal wala nangam sax dugg na fi génn fi. fulla ak fayda état ngay def pare wan ko ginnaaw ñaan yàlla ni kii yàlla bu mu fi dellu si. mais est-ce que nekk woon démb waru woon nekk euh, benn genre euh, nu mu ko mën a tuddee occasion. pour euh, euh, euh peut guerre bi nga xamante ni boobaak léegi ñu ngi koy nemmeeku ci entre taxaw Sénégal ak euh, Pastef démb mu nekkoon occasion pour ñu pour ñu pour ñu pour ñu gas ko suul ko ah, parce que Diomaye comme ni ñu koy waxee nekkul président wu benn Sénégal mais président wu sénégalais yëpp la te Barthélémy Dias wax nga ko sànq maire la ah, te àlakulaan dafay liggéey ak ki nga xamante ni mooy Bassirou président Bassirou Diomaye Faye mais démb seen ñàkk teewaay est-ce que du gën a xajamal diggante yi. waaye jaaram ma ne xajam ak ñàkk xajam Barthélémy Dias est le maire de la ville de Dakar fii may wax ak yow nii nii nii ñu toog nii di wax nii direct nii ak démb démb mu ngi liggéey ak état. Mm-hmm. le trésor public le percepteur rek ñoom nangam sàngama ñooñu noonu yëpp ba ci police bi nga xam ne moom mooy monté ak ASP yi monté ci buntu ville de Dakar c'est l'État. Mm-hmm. Barthélemy Dias moom moo fa nekk personne politique ba nekk foofu nga xam ne dañ ko élire mais sinon toute l'administration kooku kooku moom nit mënatu ci dara. diw ak diw ak diw ak diw diw yëpp yàlla daal li mu def def na ko Bassirou Diomaye Faye est le président de la République. Mm-hmm. il la plus haute fonction. Mm-hmm. wu dëkk bii. Mm-hmm. kon ñi nekk ci administration beeg privé comme public moom mooy suñu njiitum réew. aadaak diine leneen ak leneen moom mooy suñu njiitum réew. doomu Sénégal yi nekk ca bitim réew. moom mooy seen seenu njiitum réew. Mhm. léegi nag ah appréciation man de man premier ministre bi ñëw na fii di inauguré maison des associations jaara ak maison de la femme mhm. demuma demuma Amadou Ba parce que période bi muy ñëw. période parrainage la ñoom ñëpp defar nañ seen i pancarte taxaw. man tam ma defar samay pancarte ñu dem ñuy inauguré xeex jolli ñu ne moom de dafa dafa doon recevoir premier ministre ba pare dóor ko. dóor day dóoraat. très seulement appelé moom mooy ministre ministre de tutelle mm-hmm. ba ca samedi ba laa ne ko madame la ministre dama bëggoon ñu waxtaan. démb ba léegi nag ñu ngi organiser ñun ñëpp. Mm-hmm. ci inauguration mais vraiment. Mm-hmm. mënoo leen ñëw ba yegg si géejawaay te duma leen wax dëgg. Mhm. mu ne ma lu xew ma ne ko man du ma ñëw. Mhm. parce que bëgguma xajamal. parce que li ma gis ci Facebook bi nii ngeen di préparé seen état major yi nekk géejawaay yëpp defar nañ ay pancarte di gàttandu waa ji te jamonoy parrainage lañ ne lii ngeen def inauguration yëpp tournée politique la rek da ngeen koy jéem a <laughs> man tam su ma ñëwee foofu ak samay nit ñoom it ñu yor ay après ñu xeex ñu ne maire ba dee moo recevoir premier ministre ak ministre Thérèse ba pare xeex ba jolli j'ai appelé le préfet. Mm-hmm. waxaat ko même chose ne ko nag luy yàq moom man du ma ko def xam nga lan moo gën comme que sama premier adjoint bennoo la deuxième adjoint bennoo la mais mais waa bennoo nañ ñëw ca xew ma da ngay inauguré jël caabi jox leen dañ ma ko indi. Ah. comme ça xew bi ba yàqu. d'accord mais moom fa ñëwee naa leen dóor de. da <laughs> nii laa ko waxee man parce que man moom bu ma ñëwee boo ma jéemee yu xoo wala ngay def ay pancarte di ko yéegal sama kaw wala ay photo Macky Sall dama koy wàccee xeex ba jolli ñu ne moom rek mooy seul maire bu recevoir premier ministre ba pare dóor ko. <laughs> Ahmed baax ñu <laughs> eh? man kay coow li mën na bari nii rek nga toog sa ginnaaw clavier di def lu la neex rek waa APR. Ah. te ñoom sax ci loolu lañ dëkk def seeni vidéo di ma saagaat di wax lu leen neex. waaye sugu mi ngi nii moom waa géej waaye mhm. laaj leen. <laughs> d' accord euh, euh, démb euh, cérémonie bi nga xamante ni amoon na foofee ca diwaanu Diamniadio prestation de serment waaye tamit passation de de pouvoir bi nga xamante ni amoon na foofee ca diwaanu palais donc président Diomaye def discours bu am solo ban jàngat ngay def ci démb la jot a xew foofee ca ñaajo mais discours bi nga xamante ni tenir na ko aussi ban jàngat nga ciy def. waaw euh, soxna Diarra maa ngi ziyaaraat bu wér. Mm-hmm. Euh, je pense que personnellement man analyse bi ma ciy def mooy que c'est vraiment quelque chose bi nga xam ni c'est exceptionnel lu musta am moo am. Mm-hmm. am na ci nag loo xam ne mun nañ jàpp ni doon na am doon na am mais lu musta am moo am. mooy que c'est la première fois ñu am président bi nga xam ni quarante quatre ans la am euh, mu nekk loo xam ne aussi c'est vraiment benn cérémonie boo xam ne la ça ça a vraiment marqué l'histoire dina nekk loo xam ne daal dinañ ko mentionner ci les pages de l'histoire du Sénégal démb li xew Diamniadio et je me dis la majeure partie aussi de Sénégalais étaient animés par un sentiment de fierté mooy que ñu gis un président si jeune un président ki qui n'était pas pourtant préparé entre guillemets wala préparé directement à ça mu ñëw réussir une mission ñu élire ko dès le premier tour mu war a ñëw jàkkaarloo askan wi li nag c'est traditionnel da ngay waat devant la population waat devant allah subhanahu wa taala ñu yaakaar ni njort ni dinga nga wàccoog nit ñi ci kaw loolu noonu nga def muy prestation de serment cérémonie bi nag li ci xew yëpp bëri na rafet na comme li ma wax en tant que sénégalais mënoo ci àddu te amoo benn sentiment de fierté mais aussi mention spéciale à Ousmane Sonko à monsieur le ministre Ousmane Sonko monsieur le premier ministre il a joué un rôle important capital da ngay gis sax ñoo xam ne ndeysaan dañ ko doon clash rek mais da ngay gis ni léegi ñu ngi commencé sax di ñëw di dégager benn sentiment de fierté envers sa personne ndax sa grandeur son élégance lépp mu rafetal ko comme ni ko le maire waxee sànq il arrivait à ce que image jàll ci écran bi rek ni ñu yooxu muy loo xam ne daal wax dëgg yàlla sedd na xol. Mhm. sedd na xol li gën a tax mu sedd xol mooy l'espoir et permis ku ci nekk am nga droit yaakaar ku ci nekk am nga droit ne ah la woon woni na. am nañ yaakaar ni tey daal mbir mi dana changer bis ni ki tey mbir mi dana changer ba pare les sénégalais à leur majorité l'attendaient parce que comme ñoom ni ko waxee folklore bi jeex na. fast track bi mag yi woote woon. Mhm. ñoom moom la ñu woote sans utiliser le mot fast track. am na solo waaw. Mhm. ak togg. <laughs> ak togg muy dox ak liñ kii. Euh, honorable bëgg nañu bëgg nañu waxtaane aussi tuuti ci li nga xamante ni démb mhm. marqué na journée démb bi muy euh, ginnaaw. Euh, passation de pouvoir bi dañu gis président Macky Sall jël vol directement génn réew mi loolu si ñu wax ci mën a def jàngat bu bari euh, pour que njiit yi yi nga xamante ni euh, falu nañ jamono ju ñu toll nii ak ñi nga xamante ñooy falu démb kenn ni nguur bu dul nguuru yàlla rek moo dul jeex. ah waaw Alaaji Moussa nee na buñ ko buñ ko waxee ne ko nguur yëpp ay jeex ba mu des bu yàlla mu ne waa kenn da koo falul. <laughs> dégg nga loolu waaw waaw waaw. alaaji Moussa radiyallaahu taala anhu mu ne. Mhm. waaw nguuru yàlla kay du jeex ndax moom kenn du ko falu. kenn falu ko waaw waaw. même ñi nga xam ne sax. Mhm. comme le royaume chérifien. Mhm. ñi nga xam ne sax ay royaume lañ yor. ñooñu sax seen bos day jeex parce que dinañ dee. waaw <laughs> bu ñu dee seen doom yi après. waaw ils ne sont pas waaw ñu daal di continuer. waaw démb nag moo loolu moom loolu ñëpp doon nañ ko séntu keroog bi mu waxee ne benn du def troisième mandat. jour boobu la kontaaro buur ba tàmbali nu koy wax ne ko ñaar nangami fan moo la fi dese daaro Salif Kébé Sakho saay bu xëyee rek bind jour si mooy nangam jour si mooy nangam jour si ba yàlla dogal nag jour si ñëw mooy le deux waaw li ci xaw a doy waar rek mooy li fi Clédor seen expliqué démb ak ni nga xam ne respecté wuñ nag euh, date yeeg yooyu mais normalement le premier avril mhm. la le président Bassirou Diomaye Faye waroon def passation bi. Mhm. ko defee nag nga xam ne le deux. Mhm. mu taxawal nag gouvernement le trois discours à la nation wala le trois sax ci fajar gi vingt heures discours à la nation parce que le quatre avril mooy. waaw fête indépendance. bu dee nag yow da ngay ñëw pour la première fois ñu defal la prise d'armes mais pas ay levée des couleurs mel ni élèves primaires yi nga xam ne lundi bu njëkk ci weer bi ñu yëkkati leen. drapeau bu dee loolu la ñu nar a def tamit. Hmm. comme li Clédor seen wax rek moom mooy chef suprême. Hmm. des armées te bu ñu waxee des armées waxuñ ne gendarmerie la. Hmm. wala garde rouge yooyu nekk ca nekk ca palais ba. wala commando yi wala une partie de l' armée des armées. armée de l' air terre euh, marine ak. et cetera et cetera ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ah war na sax jaar def revue des ah. bu ko defee nag gars yi def allégeance mooy maanaam yeeslu. xam ne ne kat suñu. patron bu bees bi jiite armée baa ngi nii. mu ngi waaw bu ko defee ñu ñu daal di koy def. Hmm. mais démb nag yooyu noonu yëpp amul ba pare càq bi ci boppam càq bi. waaw càq bi càq bi bale lañ koy takkalee càq bi bale la ki ngay wutu moo jël caq bi lonko la ko mais comme que affaire bi démb neex na rek. émotion bi jàpp nañ ñi yu baree bari bàyyiwuñ ci xel de. <laughs> la doon seet démb bi mu fi ñëwee leeral la caabi beeg caq bi ñooy ànd. kon def nga constat. waaye caq bi Macky moo war a jël caq bi takkal ko le président Bassirou Diomaye Faye. ko ko fan. bu ñu waxee nag jom ñaajo jom ñaajo te caq bi dëkk pale. <laughs> caq bi dëkk bi pale caq bi tamit lan la. <laughs> su ma caq bi ñu def ba jam ñaajo ku ko yóbbu. Baajo takk dere takk dere le général Meissa Ndiaye moom. moom ah, ko yóbbu mais général tamit. makkee ko ko indaale ko wala. doon na koo taqal caq bi ko defee daal jox ko jaay caq baa ngi nii. Hmm. waaw bu ko defee nag. caq ba ana caq ba waay. caq baa ngi nii caq bi daal fee lañ ko waroon takkale. kan moo doon borom caq bi. non Macky moo doon borom caq bi léegi moom moo doon xeex ak borom. moo doon xeex borom baatu nee nii kii moo doon xeex borom caq bi. te normalement. Eh, ci ci ci xam nga olof léeg-léeg boo jiitee dañ naan la wuy ma. waaw del muñ nag del muñ. bàyyi xeex borom caq. di xeex borom baatu neen te ma koy caq bi wax dëgg léegi nag di xeex waa waa APR ñooy borom baati neen yi ñoom ba Diomaye Faye léegi ñoo tax caq ñoo tax caq li ñuy mën a xeex yëpp li war a sulee bu parce que ñoom ñoo tax caq bi fu nekk nii caq te caq bi <laughs> caq bi jaar ëpp naa dagg de ëpp naa dagg de caq bii xaw ma ban caqay dagg mais du bii caq bii nañu dimbali rek lillaahi wa rasuuli léeg-léeg sax nga dem ba mel ni ku xaw a ragal. billaahi fekk walaay ragaloo. nga takk la rek takk bi nga takk la. léeg-léeg noonu yi la. Mhm. def loolu lu ne.